salaamaaleykum. salaamaaleykum. gars yi ro asalaamaaleykum gars yi gars yi ñu ngi fi de ñu ngi fi de ñu ngi fi ba tey gis ngeen ni ñu ngi VDN VDN bi moo metti VDN bi moo metti kenn mënul filmer normal VDN bi moo metti kenn mënul filme du koñ yi du mbedd yi du fenn bu tali du dara du dara loo xam ne mën mën ko taxaw te comme bëgguñu exposer le manifestants donc ñu ngi raam ndànk-ndànk ñu ngi raam ndànk-ndànk bëgguñu exposer les manifestants parce que c'est pas normal aussi loolu moo tax mais yéen a ngi gis ñu ngi dem ñi ngi dox jëm ci ful bi daal am na ful bu dëgër boo xam ne nii ful bu dëgër laa leen di wax bu dëgër boo xam ne nii fu ñu romb rek fu ñu romb rek mooy loolu fu ñu romb rek mooy loolu donc VDN bi la ba tey VDN bi jàpp si kër góor bi Sacré-Cœur bi gis ngeen ni gaay yi génn leen saxaar bi génn leen saxaar bi génn leen fi Salma génnal foofu génn leen génn leen fii li moo tax fii di leen tiir waaw policier ñoo fa ne du dóor kenn yéen a ngi dégg kii wax nee na policier duñ kenn parce que instant bi gis ngeen ni mi ngi boy gars mi ngi boy ñu ngi ci digg affaire bi ñun ñu ngi ci digg affaire bi gis ngeen nii gis ngeen nii yeneen gis nii mi ngi ñuul kuk donc ñu ngi dox dem ñu nak jël benn benn nit ñu jël benn nit ak sufiyo fi nekk

il paraît que ñu ngi voté di wax ne six mois yi ci hivernage ñu fekk pour rendre élection ñu ngi voté ñoom foofu ñu ngi ñu ngi ñu ngi plaidé euh, commission bi ñu ngi plaidé euh, waa comme information ci parce que de toute façon même bu ñu nee six mois xam nañu dañuy ñàkk pour voter parce que six mois mënoo ci organiser élection bien sûr mooy li ñu waxoon ni mandat Macky Sall dafa bëgg troisième mandat loolu la nekk ci ci kawam mhm. te beneen mbir mi mooy amul benn loi bu may mu def ko constitution bi dafa leeral article 103 que mandat au président ken munu ci yok ben bés article 27 le mandat de 5 ans renouvelable deux mandats consécutifs le mun <laughs> article 103 né lolé ken munu ci soppi dara du par révision du par de principe yooyu sax kenn mënu ko laal. donc député yi amuñu benn proxmal bu ñu mën a jaar. Mhm. lu muy def coup d'état maanaam jàpp ni am na lu ñu voté. Mhm. fekk ñoom ñoo fa daje. wax lu leen neex. Mhm. mais dëppawul ak charte réew mi charte mi daf ko dàq. loolu mooy li ñuy wax coup d'état constitutionnel. am na ñu ko jéemoon. Tanja defoon na ko Niger. xam nañu fu mu mujj. IBK def na ko Mali xam nañ fu mu mujj. Alpha Condé def na ko xam na fu ñu mujj. Mhm. ñu ko Côte d'Ivoire xamnañ fuñu fu ñu mujj. Mhm. Macky Sall lu bësul am ci histoire du Sénégal en 63 ans d'indépendance. Mhm. nee par force mu def ko. te moom ci bopam ne na ba ko leader recalé yi 2007 seeti. que mënul laal ci mbirum élection yi dara le 25 février day am élection. waxon na ko it 2012. le président amul ben prox ndool donc lu ñuy wax ni suñu coobare bop du mbiru politique constitutionnel, le 2 avril forces de sécurité yi institution yi juge yi waratuñu nangu Macky Sall di leen jox dogal dogal ñu koy parce que loolu constitution la ñu kon ñu waxee les grands euh, juges, jugent les grands hommes tey jii gis la

mbi ko mandat goto duuɓi joyi o wawi dañde mandat ji ɗiɗi duuɓi joyi wawi dañde o timmini article 103 constitution men wi ɗum manam duuɓi joyi ɗi hay goto wawa hen ustude ñalawm kono hay goto wawa hen ɓeydude ñalawma wi kadi député ji wona député wona président hay goto wawa waylude charɗeji ɗiɗon ɗum charɗe leydi ɗi haɗi ɗum sen mbi noon eɓe kawri kamɓe potti eɓe gooti keɓe gootine kone charɗe leydi ko riddi ɗum wi wawa wonde

o wino ko constitution o rokkanimo o diwu le 2 avril ɗum woodi ɗo yiɗi ɗo rewde wona laawol wona feere wona goongo donc oto mbaddane makko oto ndewene makko hande noon woni ñalawmo fulɓe pulle andi harmin ɗum jeeyi to ndimaagu tan ngannduɗen ɗum ɓeyɗen hollirde nder leydi sénégal e tarir sénégal pulle meeɗa haalde ene firto makkisal noon wikko ko haala mum yo firtu yo yen mballu ɗum heen mm. enen poppoti salade <laughs>

pël du wor pël du fecci kàddam Macky Sall nag nee na day woo mbokk yi ak sénégalais yëpp nañ ko ànd moom ci lii muy nam nga xam ne wor kàddoom la te wor sénégalais yi la te def coup d'état constitutionnel la dama ne mbokk yi bu kenn mun a ne day ànd ak moom xam nañu lu mu jur ci Niger xam nañu lu mu jur Burkina Tanja ba mu ko essayé boobu ba léegi Niger mu newul ci jàmm kii boobu kay see Ibrahima Boubacar Keïta xam Alpha Condé xam nañu lu tax muy jéem li nga xam ne ñëpp du yoon. ne day jalgati constitution. le 2 avril. incha allah du force de sécurité. du armée du juge. du gouverneur bu ko war a joxati kaddu bu war a obéir à ordre. décret bii mu teg nag dëppoowul ak yoon dañ ko leer. d'accord merci beaucoup merci merci président. merci merci beaucoup. allez gars ñu ngi. d'accord Aïcha. Euh, ngeen doon déglu Thierno la Sall euh, tout à l'heure mo doon wax ci les lives de Mandela mom ngeen doon dégg donc ñu fekk ko ci terrain bi mom Thierno Alassane Sall mu nek nak euh, anda kay ndaw ño xamné ni gis nga fi ñu bëgguñu situer exactement fa la nekk bëgguñu situer exactement fa la ba rek ñu top ko waaw

nakamu, mu dee téléphone bi dee ko wàcce waay dañuy wàccee téléphone yi donc bëgguñu bëgguñu jël kanamu manifestant yi di leen exposé comme ça bëgguñu jël kanamu manifestant yi di leen exposé parce que aussi c'est pas le moment c'est pas le moment ay doom Sénégal lañ yo xamné ni euh ngeen gis na la ci kanam bul sànni bul jël kanam yi mais gis ngeen euh, force de l'ordre yi ñu ngi ne rek à 100 mètres suñu kanam donc euh, manifestant yi aussi ñu ngi nii ci ginnaaw ñoom dañuy doxal rek dañuy wëyal fu ñu romb rek taal avancé fi ci des

en face avec euh, les manifestants parce que il faut nous watcher caméra caméras. il faut nous watcher les pour bañ a mettre euh, dañuy jël ci ginnaaw de ñu taal leen ko c'est pas la peine manifestants quoi c'est pas la peine les personnes mais comme nous ñuy côté quand nous ñun côté nous leen nous a jax fii lacrymogène yi dañ koy mais résister ñu ngi résister ñoom ñu ngi résister ni ñu ko mënee parce que gis nga nii su fekkoon policiers yi jot nañ ci ñoom fi ñu romb gis ngeen li ma leen wan lépp gis ngeen li ma leen wan lépp koñ bi yëpp alentour bi yëpp lañ taal donc policiers yi accédé wuñ fii ay koñ la ci ay mbedd la yéen gis ay nit ñoo xam ni nii daanaka ñoom waaw dañuy baña dugg ci impasse ba tey jii mënuma wax fa lañu nekké mënuma ko wax bëgguma ko wax bëgguma wax fa lañu fa lañu nekké parce que à travers nos live

Ils préfèrent finir tard avec avancer donc gars nous ñu attaquer page bi ñu attaquer. Partagez-les live Partagez-les leen live yi te ngeen joxe cœur, yi ñu ngi Certainement, ñu ngi saboté certainement dañuy signaler page bi les leen les leen kër yi wala parce que nous, les policiers yaa ngi avancé non policiers yi avancé dañu taxaw sur place mais les manifestants sont ici ils sont ici bëgguñu leen a jël bëgguñu leen a jël di les mettre en danger

dégg nga manifestant yi li ñuy wax nee nañ dooñu dootuñ topp benn leader maanaam leader yi bu ñu demee ba fenn fu mu méttee rek dañuy wàññeeku donc ñun aussi dañuy am ci ñoo xam ne bloc yoo xam ne ñoom la ñuy topp rek ñoom loolu la ñuy véhiculer nee nañ du ñu toppa ci benn leader parce que leader bu ñu topp daleen leen di tayle parce que euh, on sait aussi que leader yi aussi euh, bu takkee wala lacrymogène yi jip ñoom aussi xam ngeen ne dañuy sàq dañuy daw dañuy daw ñu ngi wax léegi ne Aminata Touré ñu ngi ko arrêté ñu ngi am information comme quoi Aminata Touré dañu ko arrêté euh, ñu ngi am information boobu donc gars yi ñu dagaat live rek ñu dagaat live bi ñëwaat ñu ngi ñëwaat ñu ngi ànd ak manifestant yi rek topp leen ñu ngi koy dagg ñu ngi ñëwaat de toute façon moom du ma wax fi ñu nekk parce que danga leen di exposé mais de toute façon nañ leen toppal live bi ak live bi nañ topp yi

waaw te exposer personne nous exposer personne c'est pas la peine ñuy jël c'est pas la peine ñuy jël exposer qui que ce soit gis ngeen nii dañuy taal ba taal bi taal bi di boy du tax police yi accéder ci liñ taal lii lañ leen wan ñu ngi taal dañuy taal koñ

mooy ñoom ñu ngi boyal di rombaat li ñu boyal te kenn fayu ko maanaam dañuy boyal rek ba mu ñu dem seen yoon gis ngeen ni moom laay romb